alhamdulilah rabil aalamiin wa sallallahu wa sallam ala almabuuthi rahmatan lil aalamiin nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa yi nu ngi sant sunu boroom aji màgg ci te kawe noo ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ne sunu borom moom rek mooy ki ko jagoo noo woon ci sunu xutba yee weesu ci benn silsila bu ñu tuddee kayfa tax taxfadu sixatak naka la nit ki mën a def ba wattu ak wér gi yaramam ba yaramam mën a dëgër mu nekk wér gisoon ngeen ci xutba yi weesu wér day tax nit ki mën a jaamu boromam na mu ko bëggee waaye dafay tax tamit yittee àddina mu mën koo taxawee na mu waree jotoon nañu am ñeenti xutba ca loola tey ñu ngi ci xutbay juróomeel ji bi ñu gisee ni waxtu wi dafa tombeek ñu ngi dëgmal weeru màgg di weeru koor ah jaadu na fi mu nekk nii wax yépp daal di jëm ci koor ah ngir tëj bunt bu mel noonu ba jëmmi jamono xëy na dana mas a yegg ndax silsila boobu ay xutba yu bari ma nga ca yoo xam ne lépp dafay wax ci wàllu wér gi yaram ci baax ci doomu aadama ak yi gënut ngir tëj ko nag ci waxtu wi tëjaalee ko lu mat lu mel ni lim méngool muy wax ci weeru koor ak ban relation la weeru koor am ak wér-gi-yaram loolu jàpp naa ni ci waxtu wi tembe am na solo lool xam ngeen ni weeru koor yi mi ngi dëgmal si bu soobee yàlla ab diir bu gàtt moo ci des noo ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ak tey siir bañ mën caa yegg te it la nga xam ni moom la ci suñu borom digge ci aw yiw nga xam ni ku bari yërmande la doomu aadama mën naa ñàkk solo ci boppam wala mu ñàkk solo ci moroom doomu aadama yi waaye borom bi subhanahu wa su ko amalee solo rek mu am solo yàlla yàlla subhanahu wa taala boole jaamam yi muy gërëm day dafa am ay njariñ yoo xam ni yii shar'iyya la yii sihhiyya lee day jëm ci wér yaram lii jëm ci njariñ loo xam ne ci lislaam ci boobu la jëm waxuma weeru koor sax waaye jëmmi woor rek xëy rek am yéene woor nga woor dafa am ay njariñ yu bare bari yoo xam dafay delluwaat ci doomu aadama bi koy def nekkul rek ak jaamu yàlla mu jeex déedéet abi said alxudri mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bépp jaam boo xam dafa woor benn fan te fekk yàlla yi kese moo tax mu woor ko amut leneen lu tax ragal yàlla ak bëgg yiw nee na sunu borom dana wëlbati xar kanamam mu sori sawar lu tolloog juróom-ñaar fukki at xoolal benn fan ak ni mu yombee woor ak nit ki ni mu mënee woor lu ëpp benn fan benn fan boobu borom bi subhanahu wa dana la ci wëlbati sa kanam mu mel ni sawara bu newoon ci sa kanam suñu borom day wëlbati sa xar kanam gi féetale ko feneen dàq la nga daw sori lu sawara lu tolloog juróom-ñaar fukki nawet muy juróom-ñaar fukki at loolu jàpp na ne ngëneel lu rëy la loo xam ne ku ko yëg doo xaar rek ba weeru koor ñëw nga doo ko songu koor abi hurayrata radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi na bisam altine ak bisam alxamis ci la mayaaka yi di gaaral jëfi jaam ñi suñu borom bi maana suñu borom dañu wa inna alaykum la xaafidin kiraman katibin yaalamuuna ma tafaaluun kenn ku ne ci ñun suñu borom da ko booleek ñaari malaaka bii ne ca ndeyjoor bi ne ci càmmoñ bi bind ay jëfam altine bu jotee malaaka yi dañuy yóbbu say jëf ci suñu borom nga liggéeyaat talaata àllarba ñu xëy alxamis dajalewaat dossier yóbbul ko suñu borom yonent bi sa alayhi wa sallam mu ni man de damaa bëgg a woor altine ak alxamis ndax bu ñuy gaaral samay jëf sunu borom mi ngi fekk maa ngi woor te xam ngeen loolu ci xeeti yërëmtalu yi la bokk malaaka yëkkati sa fooyi jëf jox ko sunu borom te sunu moo gën a xam ñépp gën a xam la ñuy def waaye jamono bi ñuy consulter say dossier di xool loo def ak defut jamono boobu ñi ngay fekk yow da ngaa woor ah jàpp naa ne yàlla mën na la yërëm ca koor googa rek nga woor moo tax bokk na ci sunna yonente bi la alayhi wa sallam daf doon woor alxamis ak altine xadiisu abdullahi ibni amr ibni al aas mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñetti fan de nga woor ko ci weer wu ne mi ngi mel ni at mu yëpp da ko woor am na yuñ ñu cay taamu nag muy fukk ak ñett fukk ak ñeent fukk ak juróom ku ko taamu mu woor ko moom mi ngi mel ni moom woor na at mi yëpp loolu rek dama koo jukki woon ci ay njëriñ ci wàllu sharia te waxaguma sax ci weeru koor kon ñu xam ni kon woor ci jëmmi boppam su dee weeru koor a gën a foor weneen weer wu dut moom woor ci weeru koor moo gën woor ci leneen lu dul weeru koor bu dee woor ci bitib weeru koor lañ la diggeelee kon woor ci weeru koor dal na xel lool waaye nag ñu ñëw ci li ñu tax a jóg muy wérgu yaram yan buumi jokkoo moo ko lënkale ak woor woor day mbokk yi ak jaamu yàlla goo xam ni jaamu yàlla naam waaye dafa am ay buumi jokkoo digganteem ak wér-gu-yaramu nit ki ci loolu ci ngay xam ne gis nga sharia bi ki ko tabax kooku mooy suñu borom ndax mboolem jaamu yàlla yi nga xam ne dañ koo tabax ci anam yu mel nii ñi ko xam xam nan ko ñi ko réeree ko réeree waaye am na njariñ yu muy amal doomu aadama am na benn professeur bu mag gaa sax du jullit waaye dafa xool julli démonstration bi ci nit kiy def mu ne gis nga doomu aadama bu ñàkkee benn xeetu yëngatu bu muy def muy sport loolu moom jéefar yéeg jullit ñéeg ñëpp dëppoo nañ ci dafa baax ci wér-gu-yaram professeur boobu mu ne su fekkee doomu aadama deful benn xeetu sport waaye mu ngi julli normal tey naa naafi la nee na kii def sport du ko gën a wér ñu ni ko lu tax muy ndax démonstration nit kii def pour julli moo lem lu sport di yëngal ci ay cër xam nga sport sax léeg-léeg nit ku def yoo xamante ni daanaka xumbal rek ko ci dugal waaye amalul njëriñ sax yaram bi waaye démonstration yi sportif bi dëgg di def ba muy jaram jara jariñ yaram bi amul benn démonstration boo xam ni sportif baa ngi koy def lu dul am na ci biir julli moo tax mu ni jullikat dëgg dëgg dëgg même bu de waxuma kat dëgg dëgg mooy koo xam ni farata yam di wax waaye ma ngay naafi la ma ngay julli yoor yoor ma ngay julli guddi ma ngay def rawaatib yi nee na kooku moom ki deful sport du ko gën a wér déedéet te wax na bu dee ci wàllu wér-gu-yaram ci koor borom xam-xam yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu santé ci njàngalem lislaam dañuy wax ni wér-gu-yaram ci boppam dafa fees dell ci koor bokk na ci yiñ ci mën a jukki mooy xel mi xel mi ci boppam woor day tax mu noppalu ndax xam ngeen ni doomu aadama yaram wi yépp sidit yi dañoo jokkaloo sirit gi tàmbalee ca baaraam bu ndaw ba wala bu dijj ba ca suuf ba ca yuur ga sirit dañoo jokkaloo dem ci xel mi ndax ñooy bokk ab lëggéey woor nag dafa am lu muy noppal ci biir yaram wi te loolu dinaa ko tudd léegi noppal googu mu koy noppal moom lay noppalaale ci biir xel ma ñu ni bokk na ci li gën a gaaw ci tàggatu ci xel mu neex ak mën a mokkal mooy di bari looy woor ndax woor gaaw na lool ci daas am xel comme ni ñuy ñawalee paaka wa kadalika woor dafay dindi xeeti geres yi nga xam ni mooy takk ci sidit yi nga xam ni ci la deret di jaar xam ngeen feebar boobu siiw loolu ñu koy wax cholestérol li koy waral bokk na ci mooy doomu aadama di lekk yenn xeeti lekk yi nga xam ni dafa am duhn muy ab diw diw nag buñ ko waxee tekkiwul suñu diw yi kese diw mën naa am ci leen loo xam ne jëli dafa jóge nag waaye jógewul suñu diw yi yooyu su ko doomu aadama dee lekk bu yàggee day jural yaram wi aw geres gis nga geres googu bu yàggee day fatt tiwo yi nga xam ni ci la deret di jaar su fattee deret tiwo yi muy jaar pour nit ki am cholestérol lu yomb lay doon doomu aadama su wooree dafa mel dafa am benn appareil buy aspirer geres gi ci yaramam te geres gi su wàññeekoo ci sa yaram daf lay jariñ bu wàññeekoo ci raakool yi yóbbu deret ji day waral deret ji mën a circuler normal te bu fattee barabu deret su boobaa deret su dawatul rek nit ki pour mu am cholestérol day yomb waaye pour mu feebar feebar yi nga xamante ni day euh, mën a indi jàngoroy deret loolu tamit da koy yomb. am na ñi nga xamante ni dañoo am feebaru xëtër ci xol nga xam ni ñoom deret ji ni mu war di sànnee dafa am yu koy baare. borom xam-xam yi dañuy wax ne nit suy woor maanaam yoon yi nga xam ne deret dafay jaar tamit maanaam loolu def ko cay dimbali maanaam feebaru xol allahuma lu dul loo xam ne dogalam suñu borom la mën na koo bañ a yomb lool li ko waral mooy li ngeen tuddee palpitation nga xam ne xol bi day fëgg xam ngeen ni xol dafay fëgg moom la benn borom xam-xam def daqaatu qalbi l mar'i qailatun lahu inna alxayata daqaiqun wa thawanin saa boo déggee sa xol bi di fëgg mu ne fëgg googu mi ngi naan la ah saa waay fagarul waay dund gi kat fëgg gu dem rek moo lay wan ni ay dund gi ay minute laa ki cers te lu dem rek dootul dellu si waat kon fëgg googu muy fëgg seetlu leen doomu aadama su dawee aw xël bu jëlee loxoom teg ko fi tolloo xol day dégg ni muy tëf-tëfee lu ko waral parce que da ngaa sonal yaram wi kon noonu muy dawee di nga gis koo xam ni dawut yëngatuwut fim toog la toog di sentir ni xolam fëgg gi muy fëgg dafa ëpp léeg-léeg yi nga xam dañuy opérer xol dañ lay wax ni ah yow sa xol bi kat li muy fëgg daa yeex léeg-léeg nga dégg ñu ne yow sa xol bi li muy fëgg dafa bari fe loolu feebar la wala li ci bokk feebar lay doon su ko defee doomu aadama bu ngeen gisee crise yeeg cardiaque yeeg yu demee noonu léeg-léeg xol bi mën naa daw vitesse bu ëpp su ko defee rek doomu aadama tiitaange jooju mën naa waral sax mu daal di cay faatu mooy waral cardiaque di am wala crise yi di am wala yeneen yeneen di am xëy na du ko waral bis bu nekk waaye bokk na moom ci sabab yi ñu xam su ko defee xol bi noonu muy fëggee su fekkee normalul woor daf koy équilibré ba mu nekk ci diggante bi nga xamante ni fëgg gi day daal di mel na mu war a mel. beneen bi ci des ñi nga xam ne seen suukar day faral di yéeg ba loolu mën nay waral ñuy am jabet borom xam-xam yi dañuy wax ni woor daa bokk ci liy équilibré suukar ci yaram su fekkee nit ki mi ngi faral di woor beneen bi ci des mooy xam ngeen nit ñi yàlla daf leen a bind ñu wuute. ñi dañuy tuuti ñi am yaram ñi njool ñi gàtt ila axirihi dana nga gis nit mu am yaram li ëpp ci yaram bi da nga gis ni graisse lay doon te graisse bu fekkee dafa bari ci yaram baaxul su ko defee graisse googu sabab lay doon ci day dem ba moo xam xol bi maanaam li wër xol bi libre bi xol bi doon libre dootu ko libre liberté pour liggéey graisse gi moo koy waral libre bi tooyit yóbbu de doon def dootu ko amati parce que graisse gi moo koy waral ak yeneen ak yeneen yooye nag nit ki suy woor maam day mel ni daf ciy comp di wàññi su ko defee loola mën naa bañ a lor nit ki ndax xam ngeen melokaan boobu lépp du nit moo koy def boppam allahuma lu dul ñi nga xam ne ñooy sàkk loola amma jamono bi ñu toll médecins yi ci àddina bi yépp muminihim wa kaafirihim julli ñeeg ñu dul julli ñëpp ñu ngi gëstu gis nañu woor daal am na solo ci at weer su yàgg lool nga xamante ni mu ngi tombeeg 1928 am na benn congrès bu mag boo xam ni ay médecin ñoo ko defoon euh, di ci gëstu ci yaramu doomu aadama ak lu koy may wér-gu-yaram am na benn borom xam-xam bu mag boo xam ne ab la ci wàllu faj bu ñu tuddee Waterman moom dafa gis ni benn conférence bu mu doon def ci Amsterdam bokk na ci lam doon wax ci conférence bi nga xam ne ay médecin jël nañ ko ci ndax gis nañ ni am na njariñ mooy doomu aadama ci boppam bokk na ci li koy may wér loo xam ni kenn du ko werante mooy muy faral di xiif waxuñu la nag xiif góob waaye di xiifal sa bopp loolu moom amul kenn kuy werante ci ni day may wér gi yaram xam nga xiifal sa bopp daanaka dem woor moo ko tane kon mu ni dem nañ ba gis ni woor ci boppam day tax xeeti ñam yi nga xam ni day sonal aw yaram te it du teggeeku ndax boo añee boo ndekkee di nga añ boo añee di nga reer ci diggante bi di nga lekk ay lekk yu saw sawaan nee na dafa am jamono joo xam ne bu dee machine bu nekk ci yaram dafa war di noppalu xam ngeen ni woto yeeg moteur yeeg xeeti appareil yëpp dañ koy defal entretien dafa mel ni comme nit ki su dee woor mi ngi defal aw yaram entretien ci la nga xamante ni mooy xeeti lekk yi mu ne kon moom werante amut amatut ci ni xiif moom daa bokk ci lii may wér gu yaram yaram kon loolu daanaka mooy wooral rek bu fekkente da nga caa bëgg ci te wooroo da nga yem jafe-jafe ba pare ñàkk tuyaaba bi ñu dikkee ba atum 1941 am na benn borom xam-xam bu taalif benn téere ñu koy wax yu xanjar téere bi mi ko tuddee al mualajatu bi sawmi ka tariqatin biologia xeeti technologie yu bees yi nga xam ne mën nañ cee fajoo mu ne dañuy jël bi bi bi waaye bu ñuy lim mu ni limaay leen ci woor woor ci technologie yu bees yi mën a fajoo la bokk ñu ni ko ah ni waaw parce que nee na xiif dafa bokk ci liy changé doxiinu yaram wi te yaram wi léeg-léeg dafa war di changé ni muy doxee moo tax ñu naan la booy lekk lii li ngay lekk lu mu baax baax léeg-léeg nga changé ko lekk leneen da cay baax maanaam nit ki fi ne bu jëloon lu baax ci misaal ñu ne meew baax na soow baax na ñu ne nangam baax na fir wi baax na nit ki jël lu baax loolu chaque jour rek mu di ko lekk loolu baaxul ci wér-gu-yaram nee na noonu muy varié li muy lekk kadalika yaram wi tamit dafa war di changé ni muy dundee mu ne kon boo ko wooralee yëgal ni yaa ngi changé doxinu yaram wi nee na bokk na ci la muy jariñ mooy jubbanti ko yaram wi bu dee ko war a màgg mu màgg bu dee ko war a mu nàyyi yooyu yëpp mu ne woor da koy defar bokk na ci mooy xeeti tooke yi nga xam ne dafay am ci yaramu doomu aadama te la koy waral moom mooy lekk yi nee na woor mën na koo dindi moo tax borom xam-xam yi nga xam dañuy gëstu ci wàllu tëgg ba xam ngeen loolu tey alhamdulilah borom xam-xam yi lislaam yi sax taarif nañ ci lu jeex lu bare bari dañuy wax ni doomu aadama bi nga xam ni moom dafa yëg ak di ci yaramam waaye mi ngi mën a woor wala xeetin am na nit ñoo xam ne leen sut borom bi ne dañoo am yaram lool ba dañ leen digal régime loola xam nga daanaka régime la booy wooral rek parce dafa am loo xamante ni xëy na bañ koo wax ndax doob moo tax xam nga ñi dul jullit daanaka duñ fi nekk naan la wooral parce que boo wooree koy wooral dañ naan demal nga def régime mooy woor rek ay bul lekk guddeeg bu lekk nii ak boo ndekkee bul añ ak boo ndekkeel ba suur te bul bul bul reer yooyu yëpp ñuy wax daanaka xeeti yëf yi la yoo xam ne boo wooroon lépp nga am ci tiyaaba am ci am ci la lépp kon mu ni a nekk maanaam nit ki war naa fexe semaine bu jot mu woor ci benn yoon ndax loolu dafay dimbali yaram wi ci awale ko yoon woo xam ni mooy tax nit ki benn jafe-jafe du ko am ca aw yaramam am na beneen docteur boo xam ni moom dafa wax ni lu mu gàtt gàtt gàtt ki nga xam dafa yëg diisaayu yaram wala faiblesse wala mu am yaram ba mu ëpp wala mu am geres ba mu ëpp mu ne moom li mu koy conseillé mooy lu gàtt gàtt mu tàmbali woon cinq jours baax na ba 15 jours mu essayé ko mu ni bu paree mu xool aw yaramam nan la mel. daanaka ñooñu moom li ñuy wax yëpp moom daanaka xawta jege lislaam parce que booy war da ngay war lu lislaam warloo bu ko defee nga amaale ci njëriñ bi amaale ca njëriñ bële. waaye loolu boo ko seetloo borom xam-xami lislaam yi sharia yi dañ ni ah loolu daal du firndeel lu dul la suñu borom waxoon rek wa anta suumu xayrun lakum suñu borom ni bu ngeen wooree bu ngeen yëg ni woor a gën ci yéen moo tax gis nga fi mu nekk nii ki kor jib si muy créer ay feebar moom day gën a yokk feebar rek ndax yàlla mu te ni wa anta suumu bu ngeen wooree xayrun lakum moo gën ci yéen xam nga yàlla li xool ma ni moo gën ci yow yëgal ni loolu moo gën waaye doomu aadama bi nga xam ne koor dafa jub si muy kër yaay feebar damaa nangam damaa nangam kooku boppam lay nax rek yiwu rëy mi ngi koy rëcc woo xamante ni jàpp naa ni mënu koo daba dabaatal ci beneen weer bokk na ci njëriñ yi nga xam ne woor da koy def ci doomu aadama mooy euh, yenn xeeti feebar yu baree bari yoo xam ni mi ngi nekk diggante res ak xol bi ak tiwo yi def deret yooyu maanaam lëggéey bu rëy la fay def foofu su ma ko doon joxe misaal pour mu gën a leer tiwo bi nga xam ne ndox daf ciy jaar bis bu nekk moo xam përëm lañ ko defaree moo xam kaw solo moo xam lu mën a doon gis ne boo toogee ba mu yàgg rek da ngay sentir ni tiwo bi day commencé am ay salte yu ci nekk salte yooyu su dee ci wàllu wér ci tiwo yi dañuy wax ni laaj na entretien ñu koy defaraat bu dee bërigu ñu raxas ko bu dee ndaa ñu raxas ko gis nga yu mel noonu lekk yi ngay lekk di jaar ci përëx bi di jaar ci dënn bi di jaar ci sidit yi di àgg ci mbàq bi rawatina nag fa muy nekk nga xam ne mbàq ba mu daanaka lekk du fa jóg boo seetloo li ëpp nit ki bu dul woor mbàq lekk du fa jóg te bokk na ci musiba yi indi wér gi wéradi mooy lekk te reesagut nga lekkaat te loolu mun koy def dangay ngay lekk reesagut nga lekkaat te loolu li ci gën a bon nag mooy nga lekk-lekk yu wuute ma joxe ci benn misaal benn waay mi ngi toog ba cinq heures mu doog a añ mu lekk ceeb ñu toog tuuti timis jot ñu togg cere mu jëlaat tegaat ci kawam gis nga ñaari lekk yooyu ñuy tegalante même bu dee ñaar yépp baax na loolu baaxul ci wér-gu-yaram borom xam dañuy wax ni boo ma ba bul naan lu dangaa da mar bul lekk lu dangaa xiif te boo suuree bañ a lekkaat mooy li gën ñaari lekk yu bokkut bul ko tegale te am na ay wasaaya yoo xam ne tëbbiya la insha allah balay silsila bi di jeex danañ ko indi bokk na ci yooyu nit ki bu lekkee guddi mu dox tuuti ay jéego su lekkee bëccëg mu tëdd bañ a tegalante ay lekk yu bokkut ak yu demee noonu yooyu yëpp bokk na ci yi nga xam borom xam ne dañ koy digle ci wàllu wér yaram kon woor bi mu ni ngeen woor gën ci yéen bokk na ci yi nga xam ni woor da koy dimbalee nit mooy dafay organiser heure yi lekk yi ci moom doomu aadama heure bu ko neex rek mu daal di lekk comme ni ma ko waxee sànq boo xiifee lekk boo xiiful lekk boo suuree nga lekk boo suurul nga lekk loola baaxul ci wér-gu-yaram te koor moom daf lay organiser fi ne xiif nga bi nga koy lekk dafa fekk soxla nga ko gis nga benn borom xam-xam dafa def benn sew-sew bu am solo te loolu yàgg nañ cee wax ci durus yi ñuy def fii mooy gis nga fi mu nekk nii li nit ñi ndogoo muy tàndarma fi mu nekk nii doomu aadama su suuroon ba pare añ ba reeg lekk tàndarma njëriñu tàndarma du la jëriñ yow maanaam boo suuree tàndarma dootu la jëriñati tàndarma ki mu gën a mën a jariñ mooy ki xiif ki nga xam ne dafa yëg ni xiif na ba yëg ni xiif na mu lekk ko kooku la tàndarma di jariñ moo tax boo seetloo méngale gi ko yonent bi méngaleeg waxtu dog dangay gis ni xikma ju rëy mi ngi ci am na benn borom xam-xam bu mag bu ñuy wax sobri ci borom xam-xam yi fuqaha yu mag yi la ba pare jàng médecine ci xeeti xarala yi bees yi day wax nii doomu aadama saabu wooree ba ngoon wala mu xiif xam ngeen dafa am ay xeeti euh, réservoir yu nekk ci yaramam ci mbàq bi nga xam ne doomu aadama su lekkee ba suur léegi moom dem na ci ay yitteem léegi ñu ngi segg li deret nekk war a deret lii war a nekk ndox lii war a nekk nangam lee baaxul nit ki dem gannaaw kër su fekkee doomu aadama dafa xiif nag day soxla suukar day soxla dox day soxla deret te lekk yi ko waroon di indi di formé ci yaram pour indi ko néewu fi léegi dafa am ci biir ab dencukaay benn poche boo xam ni liñ soxla bu ëppee fa lañ koy denc doomu aadama su wooree su demee ba mënatul a dem ak kàttan yaram wi ci boppam am na liggéey bu ko suñ borom liggéey boo xam ne automatique la nit day dem bi ca lam soxla ci suukar pour jox ko yaram wi gis nga saa bu tibboon ba mu jeex moom nga gis nit ki war a yàgg mu daanu xam parce que mënatu la dem ndax yaram wi coow mënatu la dékkooti xiif bi waaye fii mi ngi mën a tibb di jox yaram wi rek donte lekkoo di nga mën a continuer ba dog jot mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam digal nit ki bu doggatee mu dogee tàndarma mu ne bokk na ci kéemaani suñu borom yi ko waral mooy doomu aadama fi mu nekk nii bu xiifee ba sonn fi ne du caageen da ngay lekk léegi lekk bi jariñ la léegi lu ko waral parce que li nga lekk ak loo mën a lekk faw mu jaar ci tiwo yi dem ci mbaq gi machine bi liggéey ko doog a sànni deret sànni suukar sànni ndox ci yaramam bul yaakaar dangay naan ndox rek affaire bi daal dem fa mu war a dem mu jeex mbir mi demee wut noonu de bul yaakaar da lekk rek lekk bi dem fa mu war a dem nga daal di suur mu jeex déedéet am na fu muy jaar pour liggéey soo lekkoon tey ci misaal moo xam loo lekk jàppal loo lekk rek ni moom nga dogoo gis nga boo ko defee di nga toog lu genn wàll waxtu wala lu ko jege pour liggéey bi doo ko normal pour jariñ yaram wi mu ni tàndarma dafa bokk ci yi gën a gaaw a seey pour jox yaram bi suukar ci misaal lekk bi su doon def fanweeri minute pour yaram bi mën koo jariñoo nit ki su jëloon tuuti tàndarma mu lekk ko rek bu wooree ba pare day sentir ni 15 minutes wala 10 minutes rek affaire bi daal dinay nekk deret nekk la mu war a nekk. mu ne loolu kon kéemaan gu rëy la gu lay wan ni maanaam sharia nekkul yëfi dem leen julli ji rek dem leen aj màkka waaye sharia ci boppam li ñuy arrangé ci suñu wàllu wér yaram ak suñu wàllu àddina yépp daf ñu cey dimbali ak yeneen ak yeneen moo tax gis nga bu nit ki euh, tabaski jotee yent yàlla mu ni na nga lekk ca res ba waaye bu woo wori jotee yonent bi su xëyaan day lekk tàndarma da koy toolal ñu ne loolu bokk na ci xikma yi nga xam ne tax na yonent bi di ko def boo seetloo ci wàllu woor ayaamul biid ayaamul biid mooy bis yu weex yi 14 15 gis nga yenn sa salam nit ki nay woor ñetti fan ci weer wu ne am na riwaay yoo xam noonu la ko indee am riwaay yu ni na tànn bis yu weex yi am riwaay yu ni nañu tànn fukk ak ñett fukk ak ñeent fukk ak juróom tey xam-xam dem na ba saxal bi gis nga yaramu doomu aadama bu weer wi doog a dee ba mu dem ba 12 gis nga buy dugg 13 nag dafa mel ni vitesse bi yaram bi doon daw dafay yokk vitesse bi mu doon daw dafay yokk te loolu am na effet bu muy def ci xol bi am na effet bu muy def ci xëtër yi am na effet bu muy def ci xel mi am na effet bu def ci sidit yi vitesse yooyu muy daw su fekkee nit ki woor dafa mel ni rek ab tableau bu koy wàññiloo vitesse yi muy daw su ko defee yaramu doomu aadama ak gàncax yi ñoo bokk yam boo seetloo ñi yëngu ci wàllu bay ci wàllu agriculture dañ lay wax ni bu weer wi tolloo ci treize quatorze quinze li gàncax gi di mën a jariñu ci jant bi moo ëpp li muy jariñu ci jant bi que bu fekkul waxtu woowu ñi yëngu ci wàllu géej dañ lay wax ni le treize quatorze quinze waxuma ci weer tubaab weeru lislaam laa wax ñu ngi ci Sha'ban muy weer wi jiitu koor 13 14 15 ci Chaban jën yi ne ci biir géej ak ndundat bi liñ mën a jariñu ci lumière weer wi mënuñu koo jariñu ci weer wi bu dokkoot bis yooyu kéemaan gi wala ujubatu kulluha mooy mboolem secteur boo dem ci doxinu àddina bi maanaam fan yooyu daf mel ni sunu borom daf ko def mu nekk fan yu barkeel yoo xam ni kenn ku ci nekk dañu ci jamal sa wàll gis nga nit ki su fekkee fan yooyu dafa ñëw fekk mu woor koor gi mën na koo dimbali ba li nit ki war a jariñu ci jant bi daf koy jariñu bu dee ba bëccëg li nit ki war a jariñu ci weer wi daf koy jariñu bu dee guddi te loor yin doon tiit maanaam du am ci aw yaramam moo tax benn boroom xam-xam mu ni kon day woor ñetti fan ci weer wu ne day tolloog woor at mi mu ni jaamu yàlla ngoog waaye def ko 13 14 15 ak wér gi yaram a ngoog mu ni kon nag ku yeboo di ko dàkk foofu moom ndax boo ko fa dàkkee di def ndigalal yonent bi dinga am ak wér gi yaram waaye tamit di nga am ak noppalu ak naflaay ci wàllu euh, faju su ko defee kon noonu nga ko gisee te liñ doon wax lépp ba léegi ñëwaguñ ci weeru koor kon jàpp naa ni alxamis lañ fi waxoon ak altine waxaat fi 13 14 te loolu bu ñëwee balaa ñëwaat weer bi dellusiwaat fa kay fa ka at moo xam ne dañ ne ah daaw ba ren kat sa machine baa ngi liggéey wala sa machine yi sax laay wax fi war nga leen noppal par cë su ko defee doomu aadama bi di woor gis nga su génnee ci koor gi benn firndee ngi nii boo xam ni mën naa koo joxe am na yenn xeeti feebar ci wàllu xol ci wàllu yeneen kenn ku ko yëg ci yaramam te fekk mi ngi dem ci médecin am bu koor gi jubsee semaine na dem mu consulté wu ñu wax ko liñ gis ba pare mu sàmmoon teg tegtal yi ñu wax ci wàllu wér gi yaram bis bu waree mu delluwaat yàlla seede ne bu delloo dana gis lu lu lu ko yéem amul amul ay maam mbir mi. du ay làmbat wala ay foog wala ay defe nii ay réalité la yoo xam ni ay jullit ak ñu dul ay jullit dem nañ ba yëg ko ba di ko wax nga xam ne tey ay médecins yoo xam tuub nañ dugg ci lislaam yu mel nii moo leen tax a dugg mooy gis nañ ni kat woor ci jëmmi boppam dafay équilibrer su euh, suukar si dafay téye palpitation bi nga xam ne xol bi da koy def waaye dafay dagg li nga xam mooy am xel dafay noppal li nga xamante ni mooy mbàq surtout nag bi ci gën a kéemaane mooy mbàq ndax xam yi ci des yépp moom ay ay ay ay téwo day jàllale mbàq nag day téye boo seetloo tey diggante dënn feebar yi gën a sonal doomu aadama fii la nekk dënn biir seetlu loolu di feebar yi gën a sonal waa àddina yëpp diggante dënn ak biir la nekk parce que daanaka boo seetloo appareil yi tax nit di fonctionner yi ci ëpp fa la nekk te biir moo ca gën a garaaw rawatina ci wàllu mbàq ndax la fay tàbbi lenn lu ca nekk war na koy segg léeg-léeg mbir tàbbi fa fekk baaxul xam ngeen lu mel ni léeg-léeg nga lekk ceeb boo xam ni nga am ay xeer te loolu mu ñëwee ci mbàq gi lay toog te yu mel noona bokk na ca la cay dimbali nit ki mooy mu di ko moytandiku te kooku jigéen ñu tayal ñi defe naa ñoo ci gën a indi musiba beneen bi ci des doomu aadama di faral di naan naanaa lu bari di naan naanaa donte naanaa bari nag baaxul ci wér gi yaram rawatina góor naanaa bu ëppee ci yaram mën naa jural góor ak wéradi ci wàllu ngóora bu fekkee dafa ëpp bokk na ci yi cay dimbali nit ki pour loola tamit mu daj mooy dinaan li ñu tuddee zanjabil muy janjeer nga xam ne ki da koy defar ba mu weex mu di ko naan weex gu mën a dékku loolu bokk na ci di koy dimbali ca loola. boo seetloo yenn xeeti méttiti biir yu baree bari loolu moo koy waral ci wàllu lekk yi euh, xam nga intoxication ngeen koy wax nga xam ne bu amee ci doomu aadama mën na koo jural fitna joo xamante ni àllaaxiraam sax xaj na ca bu fekkee intoxication bi li ko waral microbe la. soo yu njëkk ya laaj bi ñu doon wax moo ci gën a baax su fekkee dafa dal nit ki waxuma chaque jour na parce que léeg-léeg intoxication am te fekk nekkut microbe yi nga xam ne laaj da koy faj parce que mën naa nekk fekk wut ni ay microbe moo ko waral dëgg la sa intoxication saa bu amee microbe moo ko waral waaye boroom xam-xam yi dañuy wax ni dafa am xeeti microbe yoo xam ne su amee ba dugg ci yaram ba gañe nu mu tuddati yaram wi nit ki mën naa jëfandikoo laaj sax te ko jariñ fekk gañe gaay tax waaye su fekkee dem nañ ba xool ni gis ni lii kat ay microbe moo ko waral ci lu mu lekk amaana nit ki bu fekkee jël na laaj mu tucc tuccal ko boole ko ak lem mu jëfandikoo ko yàlla mën na ko caa dimbali kon daal ci gàttal li ma bëgg a wax mooy koor mbokk yi kéemaanu sunu borom la ci wàllu wér gi yaram noo ngi fàttali sunu bopp di leen fàttali incha allah silsila bi danañ ko tëj ba koor gi jàll danañ ko continuer ci xeeti yëf yëfaan yi nga xam day jëriñ ci wàllu wér gi yaram ak xeeti ndénkaan yi nga xam ne borom xam-xam yi lislaam yi dénkaane na ci luñ jëriñ ci wàllu wér yaram occasion bu rëy a rëy la mbokk yi xam leen ni amu leen occasion bu gën a rëy weeru koor julli ay heure la aj màkk ay bis la joxe asaka man ko def ci benn fan fanweeri fan wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yoo xam ni occasion la boo xam ne nga cee traité sa xol traité ci sa yaram traité ci sa fois traité sa ngëm yàlla traité ci sa lépp fanweeri fan yi promotion ngi noonu yoo xam ni ku nar a am sens dëgg bu ci duggee balaa génn dana defaru weeru koor li ci nekk ci ay barakaat dafa bari incha allah imam yi nara ñëw ci xutba yi weesu yii di ñëw danañ ci xutba laal la ci wane koor mooy lan ak njariñ yi mu am rawatina njariñ yi nga xam ne ko am ci diiniya wa sixiya wa sharciya wa dunyawiya maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu lu bu baax a baax suñ digganteeg suñu boroom ak suñ digganteek suñuy moroom suñ digganteeg suñu boroom nañ góorgóorluwaat ñu tuubaat bàkkaar mbokk yi occasion yu bari day ñëw di aw yiw yow doo ca mën a jot fekk say taq-taq moo ko waral nañ góorgóorluwaat ci tuub bariwaana moos doomu aadama lu mu war a mën a jariñoo te du ca jariñu fekk ay bàkkaar ma ko yóbbee nag moom yoon doomu aadama néew sa digganteeg sa borom la kooku moom yaag sa borom la kenn ku nekk xam nga yàlla xam na ñu góorgóorluwaat ñu tuub tawbatan nasuuxa ndax yàlla kat subhanahu yenn gàkk gàkk yi boo ko àndalee li muy séddale ci ay xéewal amaan na mën nga cee bañ a am te loola incha allah comme niñ ko baaxoo ci weeru koor yee passé fii ci jàkka ji bu koor gi jegesee gën a jegese tuuti bu timis jàllee dinañ fi am benn dars buñ fiy def boo xamee bu gàtt lay doon laal la mën nay bañ a wees sax fukki minute ak juróom ci naka la ñuy waajalee weeru koor bokk na ci yiñ ciy tànn mooy fii shatii ramadan nit ki ñëw na nag ba agsi ci tefes gi nga xam ne weeru koor a ci topp xam ngeen ko tefes ndox maa ci topp kon ku yegsi tefes gi naka nga a wag a soog naka nga war a waajale pour sóobu ci ndox ma loola bindu mel noonu incha allah xëy na ñaari semaine lu jiitu weeru koor dinañ ko def fii ci jàkka ji timis ak gée du doon luy gudd ndax fukki minute ak juróom rek lay yem kooku benn la beneen bi ci des mooy sa digganteeg say moroom xam doomu aadama mënta dund moom kese faw ngay tooñ say morom te bi gën a garaaw nag mooy tooñ sa morom gis nga doomu aadama tooñ sa morom moo gën a garaaw tooñ sa borom ndax mbir mi nit ki lijjanti koog boromam te fekk faatoogut moo gën a yomb lijjanti koog sa morom bariwaana moos doomu aadama teraa nga daw ba ci ron xaram tey tàkkam te du ko mën a sëgg for ko fekk dafa ay yëf-yëfaan yu ko gàllankoor rawatina nag tooñ tooñ mbokk yi lu bon la lu yées la lu man a delloo nit gannaaw la wax naa leen fi gayra maratin wala marat doomu aadama léeg-léeg dina am ay symptômes yoo xam ni boo ko xoolee da nga kii dañ kaa njabar wala dañ koo liggéey wala dañ ko nag fekk yàlla xam ne ne loolu lépp dara amu ca dafa am yu ko gàllankoor moo xam dëng way wayjur la moo xam tuumaal sa mbokkum gor la moo xam wor la moo xam tooñ la yii def mani manifestation yi muy def boroom xam-xam yi dañuy wax ni li ko wuutaleeg manifestation jabar tuuti la dëgg la nag bokkuñu waaye nag am na yuñ nuróole nit ki mën naa tooñ moroomam fekk tooñ googa mi ngi koy yàqal lu bari dangaa ngaa jël yëfam da koo tuumaal da nga koo waxal loo ko war a waxal ah da nga koo yéene lu bon da nga koo añaanee ila axiri ci xeeti tooñ yi dox suñu diggante ñun dañuy bàyyi ba koor gi jeex ku nekk di yëkkat di baal ma baal naa la fekk c'est trop tard ngay door watit wax ñu njëkk ñu baax ña bu koor jub si waan la ñuy baalante àq pour préparer defaru yow koor gi dem na pare looy baalante àq ba koor gi jub si la bokkoon ci sa préparation mooy koo jàpp ni ameel nga ko àq bu dee baal ma la nga wax ko baal ma te baal ma àq joo xam yaa ngay kaf ma ngay kaf ama nit ki ne baal naa la fekk yàlla ne li muy wax sax gëmu ko yow li ngay wax sax gëmoo ko na ne rek baal ma àq nit ki daf koy def ca waxtu ba muy jot te bu koy def mu def ko ak sérieux ndax yàlla xam na li ne ci biir dënn yi ñaarel bi mooy su fekkee loo ameel nit la wala àqam la wala yooyu nga delloo ko ko bu leen yaakaar ni nit ki jël yëfi jàmbur ëpp ko doole toog ci noppi yàlla gisu ko yàlla gis na ko de maanaam nit ñi ci seen jëm seenug yàkkamti influencé wu sunu borom pour muy def lu jotub yàlla mu ni wala taxsabanna allaha gaafilan amma yaamalu zalimun tooñkat yi bul yaakaar ne yàlla moom dafa yëgut li ñuy def ahankay yàlla mu ni yëg naa ko de innama yuaxirukum li yawmin tashxasu fi labsar daam lu may xaar la muy xaar saa bu yegsee mu def ko nu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala an yataqabala minna innahu huwa samiu alalim wa an yatuba alayna innahu huwa tawaabu rahim koor gi ñu dëgmal yàlla na borom bi booleen ci ñi nga xam dañ koy dugg ci jàmm génn ci jàmm màngaale ci yiw wa yàlla na borom bi booleen ci ñi nga xamante ni dañuy dàkk laylatul qadr ba jot ko ba suñu borom lam ca digg ci yiw mu defal nu ko allahuma inna nasaluka alhuda wa tuqa wala afafa wal ghina naudu bika min alhammi walgammi wal ajzi wal kasal wa naudu bika min alkufri walfaqri wa adab alqabr اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعينا دامعة وقلبا خاشعا ولسانا على البدن على البلاء صابرا ولسانا ذاكرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد allahuma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid